ñoo ñoom lañu wax ne ñoo jàll noonu te direction générale wax na ñoo jàll waa gëm sa bopp nee nañ yooyu la liste de du fi jàll bee boo ñu xam ne respecté wu ñu délai dépôt yi kon nag liste yooyu yee benn waru fee jàll bu fekkee loi rek la ñuy appliqué du samay kàddu looloo tax gëm sa bopp bokk na si ñi nga xam ne démb dugal nañu seen ëpp recours ngir nag ñaar caay recours ngir euh, yooyu liste yooyu nga xam ne wax nañu ne jàll nañu benn bañ see jàll ba noppi it euh, ñu xam ne ne kon direction général euh, la mu publier ci ay liste bu ñu jàll benn bokk yaakaar moom ay listam kenn waxaale ko kon ñoom foofu lañu ko jaarale le conseil constitutionnel nag dañu nekk kon ci guddi ba bëccëg kenn xamu si bu ñu nekk ci diggante bi la ñu nekk ak Sénégal nee nañu nag benn bokk yaakaar yeewi askan wi ñoom ñaar seen i liste yëpp benn waru see jàll ndax nag wax fa dëgg neex yàlla ku def njombe da nga ba nangu ne def nga njombe ba tey ñu war a mën a jàllale sa bis loolu dafay fi nee ne kon fii ci réewum Sénégal loo amu fi bennoo yi gëm sa bopp wàllu defar sa gox aar Sénégal ñoom ñoo ñëpp nag ku si nekk jàppal ne démb yaa ngi woon sa conseil constitutionnel ba ngir nag dugal fa li nga xam ne mooy sa recours euh, sa sàkkuteef jëm ci législative yi nga xam ne moom la ñu euh, dëgmal opposition bi nag bi yeboo ñu xam ne soit dañuy booloo rek xeexandoo maanaam xàccindoo dóorandoo amandoo ndam wala ku nekk tas xeex sa xeexu bopp ñoom ñëpp rek daal di ku si nekk jàppal ne kon fa fa ngay doxee rek na xasaay ndax faire bloc contre Macky ou disparaître ndax nag nee nañu Macky mbër la bu nga xam ne nii eh, kenn rek mën na koo daan faw nag ñu booloo xàccindoo dóorandoo ngir mën a jàkkaarloo moom opposition bi kon nag seen ëllëg bi boo ñu xam ne mi ngi seen loxo yéen bi foofu la eh, eh, génne dinañ ñëw comme ni ma ko waxee rek ci mbirum ah, Farba Far Far Farba Ngom mi aja vox populi bu fekkee jàpp ne da ngeen ma koy jox fu mu nekk nii nag suñu juróom-ñaari maam yi euh, sept sages yi euh, patas bu tàng bee euh, nga mu ngi seen loxo ndax mbiri pataas bu tàng lañu ko ñu ko jàppee muy deuxième tour contentieux électoraux yi Benno Yewwi ñoom it ñi nga xam ne joxoñ nañu leen baaraam dugal nañu ñoom it seen i recours ku si nekk trois recours la dugal gëm sa bopp moom ñaari recours la dugal waa wàllu ñoom it ñu ngi ci mbir mi dey Fall nag nee na euh, lu ñuy sàkk moo di mascarade bi nga xam ne moom la ñuy dox si jamono ji euh, mbirum grand théâtre yi nga xam ne ñu ngi koy def ci législative yi nañu ko teg ci suuf ndax nag xel xalaatu liste titulaire bu Yewwi Askan Wi ñu koy rejeté ci les lu mu ci manti doon de solution bu mu ci manti doon ndax bu ñu mën a envisager bi boo ñu xam ne li si yeewi askan wi tamit xel xalaatul mu fi jàll kon ñu ngay paasante bal bi ku si nekk mi ngay joxoon sa baaraam te moom nag fa mu ko wéer moo di article LO 185 waa wàllu ñu ngay dànxaafu nag nee nañu fii réew mi toll nga xam ne mënees nañu wax ne euh, xal euh, xal bu gëmm la te lu nekk mënees na see nag yeewoo te nag euh, mbir yi di nga xeet sa xal mu lakk sa daa noonu lañ koy faral di waxee nee nañu nag. sa xal mu lakk sa dàgg. mu lakk sa dàgg voilà noonu la kon nag yéen a ngi lii di raam nii bu ñu ko seetaanee sa ñag ba la nañ ci bàyyi xel. aar nee nañu nag manipulation yi nga xam ne ñu ngi koy amal jamono ji waxtaanu biir néeg bi ngir nag ñoom ñi nga xam ne seen i liste muy ah muy mu yeewi askan wi Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo gën a xam ne seen i liste manul manul jàll. ba pare waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koy amal seen biir cuisine interne boobu yee ñu xam ne loolu dafay nasaxal suñu démocratie kon na nañ ci bàyyi xel suñu juróom-ñaari sages yi nañ bàyyi xel ci ci loolu loo looloo tax sax Alioune Tine bu Africa Joms ci kaay bi di Vox Populi di wax ne ni démocratie bi fii ci réewum Sénégal fu mu toll lu ndaw rek lu ndaw rek mën na ko xajamal kon nañ ci bàyyi xel te nag fii ñu toll nii euh, lii di xeeñ neexul

du ñàkk ñoo ngi bokk ci euh, benn bokk yaakaar ñoom nag nee nañu même jour même lieu ak même heure fa nga xam ne waa yeewi askan wi fa la ñu woote di place de la nation ñoom it dugal nañu seen ab demande ngir euh, même jour boobu même heure boobee ñu amal fa li nga xam ne mooy contre manifestation bi fës kenn jàkkaarloo waa yeewi askan wi loolu rek mën naa taal réew mi nañ ci bàyyi xel. dëkk fu mu nekk nii réew mi talul loolu euh, góorgóorlu yu seen ndékki añ reer ci boppam a dugal de. waa njëkk dugal ak mujjee dugal manifestation defante moom man naa ñàkk. waaw nañu ko def ci jàmm rek. nañu manifestation pacifique pacifique. jàmbat sa jàmbat ba pare dem toog ak sa kër. loolu euh, kenn mënu koo bañ ndax loolu si démocratie la bokk. waaye woote manifestation pour defante yaakaar naa ne man naa ñàkk.

fu nek ni nii ku si nekk yaa ngi sa cëggali guuy di xol foy fooy toltolaane donc toutes les coalitions dans la bataille pour les euh, recours kon nak coalition yëpp fu mu nekk nii euh, nañu seen euh, loxo ngir nak mën a xeex bi mbiru bébé yi nga xam ne dañoo lakk ba jéggi dayo ñaar ci agent de santé jot nañu leen déféré syndicaliste yi nag fu mu nekk nii fenn rek lañu ñu jublu mooy sunu xalif généraux yi ngir nak ñu ñaan waxtaan ba ñom agent de santé yooyu ñu bañ a nekk béyu sarax gi ñu dem ci Sud Quotidien du fekkee euh, am ngeen ko Sud Quotidien saisine bu conseil constitutionnel bi tax euh, euh, dossier yi nga xam ne coalition yi jot nañu ko dugal Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal benn Bokk Yaakaar gëm sa bopp jamono ji daal ñoo fës kee ne jàkkaarloo suñu juróom-ñaari maam yi sept sages yi dugal nañu seen i këyit fës kee nag Euh, joxoñ baaraam it kii di Antoine Félix Diome di ko xamal ne kon nag administration bi fu mu nekk nii dafa mel dafa rax politique ku su nekk na yem fañ ko yemale rek euh, su ko defee nag réew mi mën a avancé waaye moom Antoine Félix Diome yenn saa yi ak dafay saf politique lool nag le témoin daal di euh, dikk ci jamono ji tekkaaral gi ñu ne ci réew mi dafa mel ni lépp nag mi ngi nekk ci loxoy suñu juróom-ñaari maam ndax nag am na dogal yu nga xam ne bu ñu ko joxee réew mi dana yëngu lool te lu yëngu lu nekk la ko yëngal la ko doole kon nag

dafa am benn étudiant ak benn élève ñaar la ñu di ay góor ñu dajee ñu fekk leen sa place ba ñu ngi simmeeku ba ne dung nekk nag euh, sa naka sa dul noonu ñoom ñaar nag jot nañ leen teg euh, xam naa mbirum sëy ak ñoom xeet borom ñaari tur yi euh, jot nañu leen a teg loxo nag réew mi quotidien dikk na ca libération parquet dafa opposé vétom ci euh, sàkku réquisitoire téléphonique en bu aji Sarr ak siidi mbay Mbaye Sidi Ahmed mbay mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko xam nga ne euh, gaañ ñu ngi ci mbir yi ba léegi ndax nag ñoom lu tax ñu ne euh, jaruñu réquisition seen seen portable yi ndax nag Adji saar ak kii di Sidi Mbaye mësu ñoo nëbboo ni xamante nañ donc nag euh, amul dara lu ñu lu nga xam ne nii mënees nañu euh, jàpp ne euh, am na lu lu nëbbu ci biir en tout cas mësuñu nëbboon ne ñoom ñaar xamante nañ législative yi conseil constitutionnel ñu ne guerre des recours moo fa am gëm sa bopp dafay sàkku ñu invalider mboolem buy liste bu nga xam ne nii dañu wax ne jàll na ndax nag respecté ñu délai dépôt yi Benno Bokk Yaakaar moom dafa bëgg nag liste suppléant boobu ak moom la déposé liste suppléant bi titulaire bi ñu bëgg éliminer ñu bàyyi suppléant bi ñu bëgg éliminer ñu bàyyi ko mu ñëw nag euh, liste Yewwi Askan Wi leer ba ah moom it nañ ko rejeté benn bokk yaakaar loolu seen recours Yewwi tamit déposé nañu trois recours ñu restauré seen liste national ñu invalider liste benn Bokk Yaakaar Aar Sénégal nag nee na conseil constitutionnel bi patas bu tàng bi mu ngi seen loxo euh, seen dogal nag mën naa yëngal réew mi bee boo ñu bàyyi ci xel bu baax suñu juróom-ñaari maam yooyee ndekete yoon nag lakk gi nee nañ fukk ak benn ñoo si ñàkk seen bakkeen ci ay bébé am na ci ñett ñu nga xam ne ñi jot nañu leen a Euh, ci lakk gi nga xam ne moo amoon foofee euh, ñi nga xam ne nag waa IGE euh, président Macky Sall na mu ko waxee noonu la ñu ko defee tàmbali nañu audition yi couple présidentiel bi président Macky Sall nag ak Marème Faye Sall ñëpp nag fu mu nekk dañu leen a naw ndax nag bu ñu toogee dañuy wane seen ak jonge gis nañ yenn saa yi président Macky Sall di ko takkal li nga xam ne mooy ay montram parfois mu koy defaral ay euh, kit oreillette bi genre yooyu xam nga rek euh, dañu wane seen ak jonge neen daal ñoom ñaan mooy ñoom daal couple jonge si si réew mi bu fekkee ne président Macky Sall ñu ngi koy ŋàññ ci wàllu politique nee nañ nag wax fa dëgg neex yàlla nag mi ngi toppatoo Marième Faye Sall bu baax nag te mbégte mi ngay gis ak ci kanam Marième Faye Sall yeewi son vatou kon nag yeew fu mu nekk nii nag carte carte gu mujj gi moom lay lancé nii huit heures deux euh, est-ce que duñ dem sax si si si farba gi hmm? ñu dem ci farba gi laata laata ñuy xabaabal léegi farba problème am mooy ci source A man ngeen ma ko jox source A voilà farba 890 millions lañu lañu sàcc nee nañu sa sa biir këram 890 millions daanaka 1 milliard la. 1 milliard presque. xam nga ne farba mi du toog ba xam ne dina naan tey jii baat naa am dépense du toog ba ne est-ce que tey jii sama courant du coupé. macha allah ku liggéey ku nekk nag loolu lay ñaan jaajëf waaye farba waaye nag li li li si jaaxal nit ñi Doudou jaw nee nañu nag moom la ñu si joxoñ euh, baaraam nee nañu moom mi ngi euh, li mu xam chauffeur am la nee nañu ba tey euh, nee nañ chauffeur am la te daanaka servir garde garde garde rapproché nee na il ne que soixante mille francs ah soixante mille francs si li ñu wax yéene kaay bi hmm? mu ngi nii en même temps garde du corps, en même temps chauffeur de Farba. 60 000 francs la wax nee dañu il a fallu ñu tek loxoom ñu tek loxo moom ñu teg loxoom goroom ak jabaram ngir moom mu doog nangu nee na nag gi sàcc gi moom neexul ba neex 300 millions rek la sàcc. moom nee na xaritam nag moo moo moo moo def lépp. 300 millions la rek la ah 880 kii boo sàccee 300 millions. mën nga ko dong di waaw donc moom 300 millions képp la sàcc nañ ko bàyyi. wax fa dëgg moom rek rek rek rek la sàcc 300 millions kese kese kese kese. donc ca kër ga kon nag wax fa dëgg neex yàlla ku doon percevoir soixante <laughs> soixante mille nga gis ci kër goo xam ne ñu ngi fa denc huit cent et quelques mille ay saaku xaalis <laughs> am na mi ngi mel ni banque yi bu nekk ci banque bi rek nekk ci guichet bi di joxe. Eh, sama rakk ji xadi ma koy nuyu ñoom ñooy joxe ñoom ñooy joxe xaalis bi ñu leen di fay ay salaire yu nga xam ne wax fa dëgg neex yàlla ay cinquante mille yooyu ba pare nga bëgg di jox saa su ne mais nag c'est pas une raison

yor ay milliards di ko denc muy yàqu di koy denc muy maxe ci seen ay dëkkuwaay. jël seen kër yi def ko ay kaaw. wax fa dëgg ne yàlla mieux vaut. def ko ay kaaw di ko denc. këru politicien genn wàll yëpp boo demee seen kër yi. ay am na ñoo xam ne munoo xam sax ay kaaw nañ jël ci ci suuf. ñoom ay chômeur la ñu woon. kon xamul métier bu ba fekk xaalis yàgg yi nga xam ne changé nañ ko sax. ba ngoom huit cent. xaalis yàgg yi nga xam ne changé nañ loolu du loolu du seen xaalis de loolu seen seen euh, xaalisu poche bu faw kaay naan ataaya quoi. may yaasin may maam bay may may. kii quoi ataaya bu foor cest di suñu politiciens yi ni ñuy ni ñuy ni ñuy dundee ni ñuy. <laughs> fi réew mi toll. fi réew mi toll loolu la. nit di feebar faj lekkuñu naanuñu seen nelaw doyul. huit cent et quelques millions yi deful ba Farba Ngom ngay denc. un la wax ji nekk installation yi yi amoon foofu hôpital boobu la. foofu la wax ji nekk. ah mais mais kuy oser affronter ko. kuy osé dénoncé ko. kuy osé ni ko lii du yoon kuy osé fëgg justice. ah da ngay taxaw affronté ko ñu la ñu la war a jàppale ñu jëkk ngemb ni la sa yoon nekku ci. Mhm. suñu yoon a ngi ci ku xëyul ko woon ci yow. war nañuy laaj bu yenn xaalis boo ko dencee sa kër après fan la jógee. wax na dëgg de c'est dommage. ak fan la jógee kenn du Farba jaajëf waaye Farba. ayca kon Yacine eh, El Hadj mën naa dem ci lii gën a fës si eh, jotaayu xibaar bi. aywa ah, El mën ngaa dem directement. ok ok maa ngi xool li ñu ma yónnee nii ci kenn ku ne ñaata la am sañ-sañu denc ko ci xaalis eh, ci biir këram eh, ngir bu ñu ko laajee mu mën ko justifier sinon bu weesoo loolu. Ah, yow loolu da ko waroon tës sax loolu woon sax nga. élection législative yi. alors ñu wax ci projet politique Yewwi Askan Wi nga xam ni Malick Gueye bokk ci ñoom échec la ko jàppee ndax àndandoo bu kenn ku nekk da ngaa bëgg a nekk ca kanam démb la doon euh, jiite benn ndaje bu cadre euh, yu bokk ci grand parti doon fekkee dañ ci dellu